dafa amoon benn dëkk mu am benn kër goo xamante ne dafa amoon jëkkër ak jabar waaye nag ku ci nekk dafa indaale doomam doomu ku jigéen ki nag daf ko yàq du ko wax dara di ko jëndal ay yére di ko ko jox du ko liggéeyloo du ko defloo dara bàyyi ko rekk ci li ko neex léegi doomu ku góor ki moom mooy nekk ci kër gi di liggéey nekk mbindaan bi def lu nekk tante ji sonal ko nag di ko def loolu ne bu liggéeyee ba pare sax tànt ji day ñëw ne ko li nga liggéey seetul jaaraat si xale bi daal di jóg nekkat ci li mu defoon di liggéey di liggéey yendoo liggéey papa ji di gis loolu mu daldi am lu ko metti waaye mënu ci dara léegi benn bés xale bi daal di ñëw ne papa ji mën de dama bëgg a dem liggéey ndax ma jàppale la ci kër gi ndax fi ñu toll nii situation bi ñuy dund dafa metti torop te yow lu nekk defal nga ma ko papa ji ne ko doom yow waroo def loolu di dem liggéey yow xale nga mu ne ko waaye papa loolu dara bàyyi rek ma dem liggéey su ko defee dina am xaalis bu bari su ma ñëwee jox la ko léegi tante gi taxaw di leen déglu di xalaat naan waaw yi ci sax dama koy daal di yóbbu mu dem liggéey mbindaan léegi su ñëwee ma mën a profité ñu jël xaalisam bi man ak sama doom ñu noosee ko mu daal di dugg si fekk xale bi di wax ak papa ji rek mu ñëw ne ko waaw kay yow sax danga war a dem liggéeyi su ko defee nga dem defi mbindaan nga indaale xaalis bu bari papa ji daal ne ko lan moo tax doo wax sa doom bu jigéen yow mu dem mu ne ko man sama doom bu jigéen du dem ndax moom dafa rafet ba pare buggul dara laal ko buggul loxo yi takk dara bëggul sonn bëggul def dara te moom dem liggéey kay ci sa doom ji la gën a jekk que sama doom ndax moom dafa rafet te sa doom ji moom dafa ñaaw léegi nag xale bi xëy ci suba gi di préparer pour war liggéey war a dem uti liggéey tante ji joxu ko lekk joxu ko naan mu daal di nangu lépp léegi papa ji gunge ko ba ci bunt bi papa ji ne ko doom maa ngi ne dénk ñett yi bul mësa bañ ku la soxla ndimbal del dimbale koo mën a dimbale mu ne ko ñaareel bi mooy na sawar te lépp tamit looy def na nga ko defal xol bu rafet ak xol bu set mu ne ko waa papa dinaa ko def dégg naa li nga wax léegi xale bi daal di dem léegi mu daal di dem di dox di dox guddi dox ay bëccëg mu daal dem di dox gisul kenn ci yoon bu daje kenn ay bësi bës mu nekk di ko dox mu nekk di fàttaliku di ko papa ji waxoon mu nekk ci yoon bi di xalaat loolu di dem ba si yàgg rek daal di gis benn garab garab bi ne ko waa sama doom est-ce que di ma mën a dammal sama branche yi sama branche yi yëpp dafa sec di ma ko mën a dammal mu daal ko waaw loolu dara mu daal di yéeg ko lépp garab bi ne ko jërëjëf bu soobee yàlla dinaa la delloo ba wisal mu daal di dem mu continuer di dem di dem ba si yàgg gis benn garabu raisin garab bi ne ko doom mbaa di ma mën a wàqil suuf si ma wër ndax mu mën a amaat ay doom boo ma ko defalee dinaa la fay bu wisal la xale bi ne ko d'accord xale bi daal di jël semmiñ bi daal di wax ci suuf si yëpp defaral ko ba mu baax léegi garab bi daal ne ko jërëjëf doom mu daal di noonu di dem di dem ba si yàgg gis benn fuur bu yàqu bu yàgg fuur bi ne ko doom dinga ma mën a tabaxaat defaraat ma ba ma mel ni bees soo ma ko defalee dinaa la fay ba wisal la mu daal ni ko d'accord mu daal di dem jël suuf si jël ban jaxase ko ba mu nekk pat daal di ñëw tabaxaat fuur bi ba mu bees fuur bi ne ko jëf doom mu continuer daal di dem muy dem ba si yàgg rek daal di gis benn teen bu yàgg te yàqu teen bi ne ko doom dig mbaa dig ma mën a ngaccal sama ndox mi nekk sama biir ngaccal ma ko yëpp tuural ma ko te defaraat ma boo ma ko defalee dinaa la fay ba misal la xale bi ne ko d'accord mu daal di defaral ko ngacc ndox mi defaraat ko ba mel ni bees teen bi daal di ko ne jërëjëf daal di koy ñaanal mu daal di dem noonu mu continuer continuer ba si yàgg daal di gis benn xaj xaj bi daal ne ko doom doomu dimbale nga sang ma defar ma sama yaram bi dafa tilim mu daal ne ko waa d'accord mu dugal ko ci rivière bi daal di koy sang defar ko ba mu set xaj bi daal ne ko jërëjëf dinaa la fay bu wisal la mu ne ko waaw kay jërëjëf yàlla na sa yoon nangu léegi muy dem di dem ba guddi jot nag mu seen benn kër mu daldi dugg ci kër gi bi mu duggee gis fa ay bindeef mu nekk juróom-ñaar bi mu dugg see nuyu leen ne leen ma ba di ngeen ma mën a may ma fanaan fii ndax fi ñu nii guddi na te fanaan ci biti wóorul léegi mbindeef yi daal di ne ko waaye loo doon def ba heure yi ci àll bi guddi gi mu ne leen man de dama nekk di liggéey ñu ne ko bu dee lool la boo buggee nga liggéeyal ñu ñun dinañ la fay ñu jël la nga ñuy liggéeyal mu ne leen waaw ñu ne ko waaye juróom-ñaari néeg a fi ne juróom-benn yi ngay nettoyé waaye juróom-ñaareel bi doo ko ubbi mu ne leen waa d'accord naa léegi nag mu nekk di di leen liggéeyal di def liñ ko wax bés mu ne mu defar juróom-benn néeg yi waaye mësta ubbi juróom-ñaareel néeg bi ko waxoon mu respecté liñ ko wax nekk noonu ba mu mat at nag mu war a delluwaat si papaam léegi nag ñu ne ko li ñu jaaxal mooy boobu ba léegi yaa ngi liggéey ak ñun waaye mosoo ubbi fi ñu la néeg bi ñu la wax lan moo tax nga def loolu mu ne leen sama papa daf maa wax ne ma nit dangay respecté ñi nga xamante ne ñoom ngay liggéeyal te déggal leen loolu moo tax xooluma foofu léegi nag bindee fi daat ne ko ñun sa sawar ak sa jub daf ñoo yéem kañ dem ñu ànd ak moom dem ne ko gis nga néeg bi oor ak xaalis a fi ne da ngay tëdd bërëngu ci biir lépp lu takk sa yaram rek yaa ko moom léegi si la bërëngoo am or yu bari sa yaram bi xaalis yu bari léegi mu daal di nag daal di ci yoon bi mu dajeek xaj bi xaj bi ne ko xoolal yaa ma dimbale ba mu mel nii kaay nga jël ci sama per yi def ci sa yaram mu daal jël ci per yi def ci baat bi ak ci loxo yi mu daal di ne ko jërëjëf mu continuer di dem ba si yàgg daal di gis teen bi mu dimbale woon teen bi ne ko kaay tànk fii ndox nga naan mu daal di ñëw tànk si ndox mi naan ba màndi mu daal di ne ko jërëjëf mu daal di continuer muy dem di dem ba si yàgg gis fuur bi mu defaroon fuur bi tamit ne ko kaay nga jël ci sama mburu yi nga lekk mu daal di jël ci mburu yi lekk ba suur li si mu jël leneen li léegi mu ne fuur bi jërëjëf mu daal di dem mu dem ba si yàgg gisaat garabu raisin bi mu dimbale woon mu daal di am ay jus yu bëri mu ne ko jëlal ci jus yi nga tànk nga naan après mu naan ba màndi mu daal di jël leneen def ci bouteille yóbbaaleel pàppam muy dem di dem ba si yàgg daje garab bi mu dimbale woon bi muy dem mu fekk garab gi sax ay doom yu bëri léegi mu daal ne ko kaay nga lekk ci sama doom yi mu dagg ci doom yi lekk lekk ba suur daal di jël li ci des yóbbaaleel ko papaam mu daal di ne jërëjëf garab gi mu daal di dem léegi mu nekk ci yoon wi di dem rek seen papa ji fekk papa jaa ngi taxaw ci bunt bi papa ji wér nag feebaratul taxaw ci bunt bi di ko xaar mu ñëw rek mu songu laxasoo papa ji kay kontaan léegi nag tante ji génn gis loolu rek di leen xool faale ko nag papa ji doom ji ànd continuer dem léegi mu tante ji daal di woo doom ji jigéen ji comme tante ji xam na ni lii xale bi indi papa ji du ko ci may dara ndax moom baaxul léegi nag mu ne doom ji jigéen ji yow tamit na nga damaa bëgg nga dem léegi dem uti liggéey su ko defee soo ñëw moom dafa indaale xaalis waaye yow moom damaa bëgg nga indaale ay or ak ay ay jamaak yooyu. xale bu tayal bi nag moo war a dem uti liggéey léegi si la daal di demee moom it di dem di dem di dem ba si yàgg gis benn garab garab bi ne ko doom dooma dag dammal sama branche yi ndax lépp dafa wow mu daat ne ko man su dee man maa la nar dammal sa branche yi de kon amagoo ko la koy defal bu dee man ak man rek kon du du damm mu daal ne ko waara sax ma dem sama yoon mu daal di bañ daal dem mu demaraat ba si yàgg gis garabu raisin bi garabu raisin bi tamit ne ko doom dooma wàqil suuf si ma wër mu ne garabu raisin bi man man nag naaj bu tàng bi man dinaa taxaw fii naan la dama lay wàqil ay ay suuf ak sama loxo yi nga xam ne dama koo defar ba mu rafet mu ne ko bu dee man ak man kon de amagoo ko wax wàqil mu ne ko man ma la wax wàqil noonu mu daal di continuer demaat ba ci yàgg gis fuur bi fuur bu màgget bi fuur bi ne ko doom dooma defaraat ba ma mel ni bees mu ne fuur bi lan man maa lay defaraat mu ne ko kon day beesagoo mu ne ko loolu nga wax noonu xalaatuma ko mu daal kontine continuer dem mu demaat ba ci yàgg gis benn teen teen bu yàqu bu yàgg teen bi ne ko doom doo ma ŋàcci te defaraat ma ba ma mel ni bees mu ne ko man su dee man maa lay ŋàcc kon de yow ndox mi du génn mu ne ko xanaa du yow ndox mi ci sa biir la nekk danga kaa mënta ŋàccal sa bopp mu ne ko loolu xalaatuma ko mu daal di continuer di dem ba ci yàgg gis benn xaj xaj bi ne ko doom dooma dimbale nga sama yaram bi dafa tilim mu ne ko lan rek daa di daw kay daa di daw di daw xaj bi bi mu dawee ba si yàgg seen benn kër daa di fay dugg fekk fa juróom-ñaari mbindeef yi mu ne leen ndax di ngeen ma may ba fanaan fii ba suba ñoo ñu ne ko loo fi doon def heure yi mu ne leen damay ut liggéey ñu ne ko ah bu dee dangay ut liggéey ñun de mën nañ laa jël nga liggéeyal ni waaye dafa am ay conditions nag yoo war a respecté léegi juróom-ñaari néeg a fi ne waaye juróom-benn yi ngay defar juróom-ñaareel bi doo ko mësa ubbi kenn du ko ubbi mu daal ne leen waa d'accord naa léegi nag mu commencé noonu di liggéey di liggéey liggéey ba benn bës comme dafa dañ ko bët a sob mu daldi ne xaaral di dem dem ba ca néeg ba rek daal di ubbi buntu néeg bi. bi mu ubbee buntu néeg bi néeg baa ngi lëndëm nag mu néeg bi fees dell ki yamba ki mbott rek yamb yi song ko kay daa di koy màtt màtt yaram bi yëpp mu yuuxu màtt kanam gi yére yëpp xotteeku léegi nag si la daa xaarul sax mbindee fi ñëw mu daa di génn kër gi di daw dajeeg xaj bi mu bañaw na dimbale xaj bi yaram bi yëpp am ay per yu rafet mu bëgg a jël per yi rek xaj bi daa di daw daw ko gisatul xaj bi mu demaat ba ci yàgg gis teen bi teen bi mu bañoon a defar mu ñëw bëgg a naan ci teen bi rek teen bi daal ndox mi di puus di puus ba wàcc ba nga xam ne mënatu koo jot mu daal dem di dem ba si yàgg gisaat fuur bi bi mu gisee fuur bi mu am ay gâteau ay mburu yu bees tegu ci kaw fuur bi mu bëgg koo jël rek fuur bi daal di koy lakk lakk loxo yépp mu daal dem mu demaat ba ci yàgg gis garabu raisin bi mu bëgg a tànk ci jus jus raisin bi naan garab gi ne ko duma la may mu daal demaat ba ci yàgg gis garab gi mu bañoon a dimbale damm branche am yi garab gi am ay doom garab gi am ay feuilles mu daal di bëgg a jël si doom yi lekk garab gi daal di puus a puus a puus ba ca kaw a kaw ba nga xam ne du jot doom mu daal di mu mënul dagg ci doom yi mu daal di dem yaay ji nag. taxaw ci bunt bi yàkkamti nag yaakaar da koy indi ay jamaa ki or mu taxawee noonu nag di ko xaar mu gis doom ji yaram bi yëpp di am ay matt matt yamb yi matt ko yére xotteeku rek si bi génnee ne ko waaw kay lii laa la doon wax ku yar sa kuy ba mu màgg balaa mbëkk kenn yow lay njëkk a mu ne ko moo tax tayel amul benn njëriñ tayel nag lii lay jariñ du gis nga sa doom ji ni mu mel nii mu ne ko te dama lay wax kër gi sax dootoo fi toog yaak sa doom damaa bëgg ngeen génn ca biti nga ànd ak sa doom te dem léegi nag si la dem ànd doom ji daal génn kër paa bi daal di dem léegi paa bi daal des ak doom ji nag nekk si jàmm dund seen dund bu neex moo tax àdduna moom li ci am solo rek mooy yaru sawar di nangoo defal nit ñi di di nangoo sonn ci doomu aadama yi tamit am na solo lool.